salaamaaleykum gaa yi salaamaaleykum encore Sénégal maire bi moo ngi yëg ci kaw fenêtre bi kenn xamul lu ko fi yéegal ñu ne dëmb la ndaw saa ngi wax ay kàddu yu ñaaw bay saaga ay ndey naan ban xale nga fi doon jële koo fi doon lekk koo fi doon supp keneen ki naan waaw dina wax bu ko cuuraay bi jàppee dina wax nangam nangam damay wax waa Sénégal ne leen ah famille bi nga xamante si nii ñoom ñooy famille maire bi nanu porter plainte parce que li ngeen di def tegu leen ko fenn ku mu doon sa yaay wala sa papa doo ko tim naan ko dëmm la day lekk ay nit dañ koo yabal dañ ko yónnee xamu leen lu ko fa yéegal kay du ngeen ko teg nit njaay ngeen di waxal gis naa bu ko sapori jëlee muy wax comme nit ngeen ne dëmm la sarab ndayam li nekk ci réew mi danañ ko réglé bu doon seen yaay seen papa du ngeen ko wax doomu xaram yi